mais nekk na loo xamante nii daf ñuy gën a yokk jom daf ñuy gën a yokk courage euh, dafa gën a tax tamit ñu am Pastef ci li ñuy def ndax ay site bari nañ fi te amaguñ lii bu ñu yàlla dogalee nag ñu nekk ci site yi nga xamante ni ñoo mujjee ñëw yàlla dogal ñu am dañ koy sante yàlla bu baax a baax ndax euh, di jaajëfal ñi nga xamante ni ñooy escorté ci Wassare Lamb di ñu bàyyi xel di seetaan ah di aimer di commentaire ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax gannaaw lii ñun nag lañ ko jox mais ci ñoom. la la maanaam delloowaat lañ leen ko delloowaat nañ leen ko delloowaat nañ ko mbër yi nga xamante nii fu ñu leen déggee mi ko ñu wax fu leen seetee bëgg waxtaan ak ñoom ñu yombalal ñu ko bu baax a baax tey nag ma toog fee ak ki nga xamante ni mooy Bébé Garga ndax ma nee Bébé Garga bokk na ci xamante ni bi may doog a door fii wasaare moom laa njëkk a jëm moom laa njëkk a jël seeti ko Parcelles ni ñu dem fu bëri bëri waxtaanee ci làmb waxtaan ci carrière am waxtaan li nga xamante ni moom la jot a jaar tey nag gannaaw bu feet bi amee ma wow ko waxtaan ak moom waxtaan ak moom euh, ci làmb tey ma dalal ko fii bëgg ñu gën ko yaatal ma bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a waxtaan wi Bébé Garga nuyu naa la. salaamaaleykum Ouzin maa ngi lay fay. Mhm. di gërëm ñi fi fekk ñëpp di leen ziar di sant sumay ñaari waajur di gërëm suma papa ak suma yaay bu baax a baax. Mhm. ak sumay frère di la gërëm di la jox sa wàccuwaay yow it waaw. Euh, tey ñu am trophée bi wala ñu woowaat la ndax mënuñu woo ku ci nekk ñoo dalal ko fii mais euh, fa ñu démarré woon xawoon na metti ba tax ne yow lañ dalaloon tey bi li amee tamit ñu woowaat leen yow bëgg a waxtaan ak yow naka nga gisee trophée bi ma téye. waaw Ouzin lii sant yàlla la rek. Mhm. booy fàttaliku ba ñuy njëkk a wax man ak yow suma yaay am na lum la waxoon. Mhm. newoon na la yàlla na doon ay tele télé. waaw loolu te mu jig leen. Mhm. ba ñu toogee di wax looy tëjee ma ne la damay ñaan seen site bi yaatu. ba ñëpp xaj. kon lii. defe naa yan bi la rek añ bi ñëwagul. Mm-hmm. te lii ci kanam mooy dàq. li ndax fii gis nga doomu aadama boo yéen da ngeen gëm seen bopp. te àdduna loolu rek moo am solo boo gëmee sa bopp. Mm-hmm. leneen lu waaye indi indi intéressé wu la. dëgg la man noonu laay doxee. te damaa gis ni yéen amul mbër mu mag mbër mu ndaw parce que da ngay ñëw ci làmb gis ay sit yoo xamante dañuy xool nga taxaw ak mbër mu mag ñu njaw ne jëlëp dem ci mbër mu mag. Mm-hmm. interroger ko wax ak moom ba pare pare nañ ci. te pourtant mbër mu mag bi daf ñu ëpp cachet rek. kase rek la ñu ëpp mais bu bu amee combat ni muy def ñun lool la ñuy def. ndax day dem wuti ay ñaan ñu wuti ay ñaan mu entraîné pare ñu entraîné pare ñëw bëri si yàlla rek a yor ndam. Mhm. kon nag yéen bu ngeen ñëwee xàmmeewu leen ci kenn dañ leen ci sant di leen gërëm. di ñaan yàlla lii yàlla na doon ay ndami ndami ndam te yàlla bu mu gëj ci kër gi tamit. amiin waaw yàlla doon ay ndami ndam yàlla bu mu gëj ci kër gi di leen wax nag di leen continuer di abonné di leen continuer di commenter di leen continuer di aimer ndax. loolu bokk na ci li nga xamante ni moo ñu motiver ndax euh, kuy wax ku ko déglu la bëgg ku nekk ci télé tamit ku ko seetaan la bëgg ñoo leen di jaajëfal bu baax a baax ma fàttali leen ko moo ngi nekk équipe Zos équipe Dóor Dóoraat yaa ngi ci ñaata combat. 10 ñaata ñaata victoire. 8 euh, huit victoires. Uh-huh. ñaata defet benn ak benn machine nul. mbokk gis ngeen ko nekk xale boo xamante ne nag bi mu duggee ci làmb yàggul kañ nga dugg ci làmb. 2016. 2016. Uh-huh. fi mu toll nii kon su ma juum yaa ngi ci 6 ans. waaw parce que suma suma premier combat carrière laa bëri. carrière ban. carrière mu mu mu bawal. Uh-huh. ku daanoon. man maa ko daan. mu téye micro bi de téye micro bu baax baax. léegi li ma ma ñeneen ñi pour ñu bañ a jël temps bari. carrière laa bëreel. Mhm. booy jolof booy ñaar deux bu yëmbal. baaba yoo Ahmed Dem deux ak Motin. caatu waalo. bébé Ama ak caat Tafa. Euh, su ma jumul Modou Bodi moo la daal. Modou Bodi waaw. Modou Bodi moo la daal nga nii la kan. Euh, Modou nii la caatu mbokk yi gis ngeen ko kon mu nekk xale boo xamante ni moo ngi def ay preuve ci làmb mu nekk xale boo xamante ni gëm na boppam mu nekk xale boo xamante ni saa bëree dina neex dina am xeex dina am bëre te bu dugg see doo laajte ana mbër mi ndax li ñu bëgg ci mbër da koy def bu dongalee ñu ne mbër mee waane ñu ci bari nag dañuy gis mbër boo xam te ne mbër bu xees la ndax fu ñu gisee mbër bu xees danaan mbër bu xees du entraîné mais moom saa bu sumee nga xam ne dafay liggéey saabu bu sumee nga xam ne dafa sëree ci boppam saa bu nga xam ne li muy def da koo bëgg ndax euh, mbër dañuy bëgg ci moom bu ñëwee ci digg géew wane jom ak fayda ak fit te moom yii ma la limal nii yëpp saa bu ñëwee ci làmb da koy wane te da koy da koy da koy jëfee sa combat bi nga mujjee bëre la moo tax combat bi yow sax du ma sa combat bi nga bëre ndax yëpp dafay yàgg dafay metti day xeex lu waral loolu. xam nga ñun dañuy dañuy baaxoo naan mbër yu ndaw yi ñooy bëre làmb yu neex. waaw kon ñun suñu combat bu yombee rek amatul sens. Mm-hmm. ñun dañoo war a di ñëw di def muy neex. man nag sama problème lenn la mooy maanaam heure bu ma taxawee war a bëri rek. Mhm. dañ naan ah du dara mbër mu xees bi de garaaw. Mhm. mais yàlla suturaal na ma heure bu nu dalantee benn bu nu dellu siwaatee bu ma ñëwut doo ñëw da ngay taxaw par force man maay obligé ñëw di diriger ba làmb ji jeex. lan moo tax ñu bëgg xeex boobu li ñuy wax mboobu xees du entraîné wala mboobu xees mënut a nekk mbër. noo làmb dañ ne ñaar ñaar la. Mhm. dañ ne bëre dóor te defe naa xeex pour bunt la rek. man boo seetloo damay xeex damay bëri mais des fois nga ñëw bëri bi dëgër nga xeex. sa combat yi nag xeex bi da ci bàyyi ban combat yi nga jotagum bëre du ma wax lan moo gën a métti mais ban combat moo gën a métti yi nga jotagum bëre. sama combat maak Ahmed Dem 2. dafa bàyyi woon. torop xeex nañ xeex boo xamante am na benn instant jël naa droitam boo xam ne gisuma ci stade bi. Mm-hmm. mais dama fooy taxaw mais damaa reculer ñaari paa taxaw. ak sama gaar la wanu ko nag ne ko jël naa ko bi. parce que bu ma ko waroon rek mu màmm sama kaw mais damaa arrière ba sori ko suul samay tànk taxaw aj sama gaar ba ma léwtoo ak moom mu dagg léwtoo bi dox ma dox latéral mu leer na ma instant bi dellu si naa ma aj sama gaar raamaat jëm ci kawam ci laa miime mu dugal loos bi ma xeex ak moom muy fayu ma jàpp ko. moo ko defoon ko plaqué wala. non dama ko caxabal dama ko dama ko dama ko dóor hypercule daw di ko bëtt mu bañ ma dóor ko ci faar ma gis ne bu ma xàccee day lem benn côté bi. mais heure buy lem benn côté bu ma yëndoo damay gis ñaari tànk yi ci même position. mu tolloo waaw. bu ay tànk benn bi day tegu ci kanam. benn bi tegu ci ginnaaw ma xàcc mu lem mu lem mu lem faar bi rek ma ma ma yóotu ko ci xabal. mais ndaanaan la parce que booba ma koy ca xabal ñu dem ci suuf mi may wëlbati mais damaa jël sama tànk gàllaat ko yokkaat ko ko. mu doonoon làmb ju métti sax làmb joo xamante Ahmed Demba mu simee ko xaaj bi yëpp dañoo waaw moom nag foo ko gisee moom. waaw doon kii waajul làmb. ba ci suma combat bu mujj bi loo ko a mooy. combat suma combat bu mujj bi le 16 janvier bi ma mujjee bëri. bébé amaa ba mu simmee ko xaaj bi yëpp danoo wari. dañ ne kii ni tool toll nangam ak nangam ma ne leen yàlla ma tiim xam ne sama loxo dugg ci ngemb lay tere làmb jeex te noonu laa ko defee mais du ci ñun nag yàlla la ñun kenn du la wax sax suñu bopp xam naa internet yi lañ koy wax mais bu dee mën a bëre. kenn duñu ko wax. mais ñu gis nag ka euh, yeew dafa mel dafa xaw a yéex dama xamul combat yi ñu yéex a taxaw wala boog adversaire yi ngi bëril la wala nan la demee noonu parce que sa tour nag gënoon na gënoon na kawe fii wala boog doon nañ gën a xaar moment bi nga yegg ci yenn adversaire yi mais dafa mel affaire dafa xaw a yéex. waa làmb moo làmb ñun da mën naa ne promoteurs yi ñoo ñu xaw a tardel tuuti rek. ci benn côté mën naa ko wax parce que promoteur bu ci nekk da am sa mbëru bopp. te pay promoteur boo ci fëgg ne ko diw laa bëgg a bëreel bu dee mbërëm la mu xam la du la ko jox. ok dañ leen tànnal yoon. effectivement man balaa mu doon neex dëgg ñu jël mbër ñu jël ñun xale yi defal ñu kalaaf bu dal. d'accord nga ñu boole ak say moom dugal leen yéen ñëpp ngeen. doon laale seen biir barke alxuraan amul jéggi taalaay Ousin Diop. Ousin Balla lu ko génne. kalaaf Modou. kalaaf Zos. kalaaf Garga Mbossé. mais ñun lan moo. Garga de Garga de kon ñun lan moo ñu war a génne lu dul loolu. mbër yi nga dégg ñu ne ci au top yëpp loolu mooy leen. waaw dañ ci gis benn xale mu daan benn combat deux di xool magi paa yu màgget yi ak nga xam te ne entraîneur nañ ma jox ñi amul sens nañu jël xale yu booy yu safi ñu jël leen def leen benn benn benn poule A ak B. waaw mën ngaa dugg paase jël fa bébé gaaga ku génn fii ku génn ci bee bi ku génn ci bee bi dajeeg waa A ñu xool fan la pën fan la pënd di mu di wure oubien làmb na trop xaaj bi ci wax yëpp ñemewuñ barki alxuraanu karim man doxal nañ ma fi làmb joo xamante su ma ménagère moo ma yónnee vocal bi barki Seydina Mohamed adversaire bi moo ne Bébé Garga dafa diis wutal ñu keneen barki Serigne Babacar si. te sama morom la. déggoo li ma la xanaa am na ñoo xamante bu ñu jël sama avance dañuy laaj nu ma toll. nu mu toll da jël ay ancien photo yónnee ko sa ménagère. Euh, pour pour rek mbañ hmm. mu delloo avance bi. mais des fois day toll foo xamante bu dee làmb mooy sa métier dootoo xaar lu ñëw da ngay bëri ji parce que da ngay bëgg génn mais tur bi duñ ci gaaw génn bu promoteur yi boolewul mbër yëpp mu doo ñu doon benn day gën a metti rek day gën a metti rek. mais boobaa ak léegi nga bëre teg la ay victoire defe naa ne boo defee huit victoire benn défaite benn match nul. ci xale boo xamante ni sa fi mu toll defe naa ni war nga mën a relancer wu fi mu toll nii boo jógee ci nga xamante ni mooy bébé ama ah, boo jógee ci bébé ama am ci ndam fi mu toll nii ñan noo nekk sa kanam wala ñan nga jàpp ne bébé garga ñoon la war a jëflanteel ousin xam nga tem nga lim nag ñu ne gaa sa waay day man nag man nag man nag philosophe mais nag dinaa wax man lii laa bëgg parce que mbir dañoo bari 6000 licenciés waaw man damay wax xam nga tax man li nit ñi wax gëmuma ko waaw oh. ay diw bu waxee nangam ak nangam loolu concerné ma gis nga ay Jacob Balde yi ne fi benn benn lan ñëw bëreeg ñun c'est pas la première fois ma koy woo ci làmb. Jacob Balde men su ma naataango la. Mhm. Jacob Balde man bu ma ko mayul chance du ma may chance. waaw ndax man xam naa ne maa ko ëpp ay combat te xam naa ne làmb yi ma bëre bëriwu ko man leer loolu leer la ma làmb yi ma bëree jixaat ci barki Serigne Bamba bëriwu ko est-ce que comprendre nga. Mhm. Liss Ndiago du ma ko tudd parce que du ma moom. mais ku la ko joxoon nga bëri moom. waaw ku ma ko joxoon ma bëri moom parce que làmb du wëyu wëylu quoi. digg géewal barke yàlla. mën nga wëyu wëylu nag avant làmb ji mais bu arbitre ne pirip xaru yar ngay doon par force parce que yaag sa morom ma fay nekk amul kenn kuy ñëw jàppale ci coow ci coow li. Mm-hmm. bu du paree nag mën nañu doon mën nañu bokk ndaay ak baay. Mm-hmm. arafaas boo waxee du ma jël. non arafaas moom fi mu toll nii moom. moom mais ak xam sara xam. moom Ada barki Serigne Bamba duggoon na paasal de. waaw moo tax may la aka maa xam saraxam barki alxuraan ñi ma war a bëreel ak a ñoo bari Ziza bu Pikine nañoo ñu bëri. waaw loolu ko daax. làmb la. Mambal la nañoo ñu bëri. ban borom top 5. na borom top 5 nañoo ñu bari mbay guy gi lu muy daw ci mbaru simple yi mbëru arène yaa ngi nii ne ñoo ñu bëri. waaw du bëre mbëru simple waaw carrément duma ma benn mbaru simple te mbëru arène yaa ngi koy bëgg rey na ñoo ñu bëri mbay guy gi na xam ne làmb du comédien comédie doxalul làmb làmb da ngay ñëw def fu laak fay la ñu xam ne lii moo la fii indi mais mbay guy gi foo ko fekk bu solul caay ak di fecc mi ngi ci ay yow loo defoo wane loo def dugal ko ci net bi. ana sa sutura boo jugee gàddu sa làmbit micro bu la jox nga defe na yaa mën mbëri te doo dërëm dara doonoo ko dara dara. loolu yaa ko yàlla li muy jaay gars yi mën nañ ko jënd mais dañ koo lijjantiwul mbay guy ban bëre bu bënn la fi am. ban bëre bu bënn moo daan moo daan mambaala de. yéen bañ moo tax ma moo tax ma ne amul bëre bu daa am ñu muy yenu mais mbay guddi mbay guy gi nga suul say tànk barke alxuraan mu yéen mu gedd làmb ji parewul. mais mbay guy gi boo ko woon est ce que dina la ay moo kankan nga ngi fekk yooyu lay wax parce que moom mannequin la xam nga moom balaa moo génn day may bu puudaru maquillage doo génn yooyu la gëm te ñun gëmuñu loolu ñun fu ñu làmb fekk rek noonu lañ koy jëflante. mais fi mu toll nii ak fi làmb toll amaguloo combat euh, naka ngay naka ngay entraîné. waaw xam nga dañu doon def trois séances léegi dañuy def deux séances parce que man fu mu toll damaa tooy. looy tooy. amuloo combat ngay ànd na looy tooy amuloo mais yow xam nga ne chaque fajar ma romb la. wóor na rasulaay man xaaruma am combat ak bu amee combat man loolu dama koo bëgg man chaque fajar maa ngi ci montagne. Mm-hmm. kon mbër daal du bàyyi ba ba am combat di doog a waaj. mbër du préparé day pare te man préparé wu mën naa toog nii nag wax ak yow ñu ne mbër bi de mooy loolu mais buñ duggee ci biir géew bi ba ku nekk ba ku nekk wan sa cumukaay ginnaaw. yaakaar naa da nga naan ki toog nii di wax ak ki ki nekk ci géew bi du benn. lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo lay bëggee ak ñi nga xamante ni dañ lay xaar lan nga leen di wax ak lan ngay wax promoteur yi nga xamante ni ñooy tëgg combat yi. waaw di santaat yàlla bu baax a baax di santaat yàlla bu baax promoteur yi di leen woo rek di leen wax ñu jàpp ci. Mm-hmm. di woo waa parcelle tamit. di leen wax ne leen man seen doom la ñun amuñu dara lu dul parcelle drapeau parcelle la ñuy la ñuy téye bu ñuy dem. Mm-hmm. kon dañ noo war a dooleel. di woo ñëpp di woo waa ñaaxar waa Fimela waa Joal waa Fuuta waa Thiès waa Casamance Goudomp ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee waa Touba awma seen fay di gërëm suma coach Papa Ndiaye di gërëm suma yaay suma papa ak sumay grand frère yëpp maa ngi leen di ziar waaw di gërëm suma famille yaay nag ñoom nag moom mënuma leen fay ndax bu ma jógee ñu jóg waa parcelle nag maa leen di wax ne leen nañ jàpp rek te xam ne fu mu toll nii ku ma ci jëlu léegi ci kaw day gën a metti rek mayoo ma dara maa ngi seen kaw ñoom ñëpp. gis ngeen mbokk yi ku ma ci jëlul léegi ci kanam day gën a metti Bébé Garga moo ko wax di ko ñaanal nag parce que am nañ droit ne ñoo ngi koy ñaanal ci kanamam dàq li nga xamante ni moom la jot a weesu ndax defe naa ne koo njëkk a waajal li ngay njëkk a def defe naa ne kooku am na foo ko teg wala fonk nga ko te moom xam na ma xam yeneen mbéy nag bu ñu ma meree. mais euh, moom maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko wax ne kontaan naa ci moom lii nag man man lii nag ku ne xam na ne trophée la ndax site bu nekk bëgg na ko am mais waa sët maam Yacine Fall lépp yooyu la maa leen koy may di leen ko delloowaat di ko teg seen loxo Papa Omar teg naa ko sa loxo taan njëmbat taan Yacine ah ñëpp su ma bu ma limee dama du du question dama du damay juum sax mais dama dul matal mais yéen laa may lii ndax gis naa seen yéene ci man. gis naa xeer yi ma ñenn ñi di sànni waaye kontaan bu baax a baax li maa leen ko may ndax xam ne trophée la boo xamante nii njëkk nañ koo am ci wasaare làmb te defe naa ne lii ngeen ñu yéene woon yàlla dogal na ñu am nañ ko euh, ñoo ngi waraat beneen doom xonk bi or bi n'est-ce pas bi la de or bi ñoo ngi koy wër gannaaw bi xaalis bi la ñoo ngi wër or bi kontaan nañ ci yéen bu baax a baax dina wax nag ñoo ngi wax amin te ñaan yëpp yegsi na di jox dig daje. suma suma papa borom xaas. Abdoulaye Diop Xaas waaw ah, kooku su ma kii su ma su ma wayjur bu góor la. waaw mm-hmm. ah, kooku maa ngi koy maa ngi ko ah, maa moom am na lu ñu waxante woon xam na ma xam. Mm. waaw xam na ma xam boo kii yéen tamit xam ngeen ñun ñu xam di leen jox dig dajee beneen yoon ak yeneen numéro si Wassare Lamb ak yeneen jàmmaarloo jaa ngeen